ñu commencé di mel ne xam nga moom moo xam yaay di bu baax a baax xam nga di ñaanal yàlla xam nga képp ku fa am militaire bu fa yëpp yàlla na leen yàlla may ndam quoi comprendre na nga waaw maa leen di déggee bu baax baax waaw di nuyu tamit 100 pour cent Médina waaw cent pour cent Médina bi maa leen di déggee bu baax di nuyu képp kuy mbëru buy yeewoo Médina ñoom Giri Boodloo sama turandoo Jën Kayre xam ma di nuyu xam ma ñoom Serigne Ndiaye maa ngi nuyu yëpp ñoom kéwél xam ma sonn nañ ci man xam ma ah, ah, ah. waa xam ma militaire nii tamit xam nga ñu caabi féetee ginnaaw waaw waa Rebeuss maa leen di déggee bu baax tey rek maa leen di dégg xam nga ñu may wàcce ay kaamil foofu saa bokkal xam na lu may wax nii bu baax a baax eh, comprendre nga képp ko am nak maa lay ñaanal yàlla na la yàlla jëmee si léegi Bébé Diène ñu ñëw ci làmb ji ñëw yow yàq am yàq na jëriñu dafa tàmm ci bu ñu xam yàgg ngaa bëri mais toog ba un laps de temps bëriwul mu ngi ci sa yaram docteur Bagaye nit lu mu jàng ba mokkal ko mu dugg sa mémoire ah loolu yaakaar naa ni doo ko fàtte doo ko fàtte mu quoi waaw te nangu naa ndogal bi quoi te am na fu may yóbbuwaat quoi daf suñ fàllu mbàkke jàng nga si laay si laay màggee quoi waaw kërë ngeen <laughs> doon naaj loolu kërë naajam. garaaf loolu ko waa. macha allah bébé bébé jën ak béykat dafa wax ak yow ci bébé bëre bi dafa laalaale bëre parce que ki ngay bëreel bokk na ci xale yi nga xamante ni bu wax ci làmb ci technique ak béykat dañ koy lim. lu gàkku bëre ku mën a bëre ku mën a bëre. combat bu mel noonu préparé nit ku mel noonu. lan la laaj naka nga war a waaj naka nga waajalee sa combat gàkku. loolu man ma duggee ba léegi ma ay entraînement bàyyi ma si benn yoon. bàyyi bàyyi ma si benn yoon cinq heures matin lañ ma doon yee di kuréel. nit ki nga bañ a compétir mais booy entraîné lañ ma yoon sama papa bu ma entraînement. tey boo may dee saa suuf wàññiwul man su ma sama xel dal. non yàlla mais amoo compétition. mooy contact. boo koy def rek am nga compétition fair te le onze yàggatul sama adversaire nag maa koy ñaanal jàmm xaw ma lan moo ko fi téye mais mënoon a ñëw Medina ñu teral ko ñun xaaru ñun amuñu violence non violence parce que suñu faali bu ñëwoon fii ñu teral ko jox ko mu sécurité ko xam na ni làmb la ñuy defar parce que dama koy sant ko bu ma ñëwee xaalis ma jox ko jox sama yaay moom moo tax ma jox ko sama yaay ko waa macha allah comprendre nga ndax sama yaay dafa sonn si man quoi billaa wallaa moo tax may rayante ak samay mbokk quoi billaa di nuyu sama nijaay ina hiiraade kala ɓiɗɗo pullo fuuta ko woni waaw ina hiiraade on waa Guinée waa Kolda waa Pokodara waa Goundou waa Tambacounda xam nga ina kala ɓiɗɗo ko woni noon hiiraade waa Sambijeeri voilà ko kalimaate euh, Mamadou Cissé avenue ina hiiraade kasi kasi kasi <laughs> ma ne est ce que xam nga combat bi lan la la mën a. grand ma pour carrière ci làmb. ñoom waxuma ak ñoom de ndem leen de. ay. père ma dalee ba léegi nii ñu topp sama ginnaaw nii musul topp sama ginnaaw. ok waaw moo moo tax ma ne la est ce nga lan la la mën a tàgg dama laa seetaan lu traditionnel. Mm. man ca làmb ja nga daan yow yaa tax ma dugg lu simple. Ah? damaa déglu benn jour nga ne mbëri dañ leen koy jàngal li sant yi. séeréer sama mbokku séeréer maa ngi nuyu sama séeréer yëpp ku si mel ni sama papa Doudou ñaar. yëpp ñu la may yëpp waaw billaay ñoom xam nañ ma yàgg nañ ma seetaan ak Serigne Fallou. Hmm. xam nga di leen nuyu ba di nuyu képp kuy séeréer maa lay nuyu parce man ñoo tax xam nga mooy dund làmb bi nii te dañ may ñaanal ak sama mbokku bool bool. non non mokkal nga ah. foofu parce que bi nga demee ci biir tradition gis nañ ni. vraiment bëri et puis baax ay sant la. nga ñëw ci biir mu bëgg la wax li la làmb mën a may lépp parce que yaa ngi koy jàng. waaw maa koy gis bu tër bu tër bu baax bi laa maa koy gis. fi mu waxee mu ne ci combat bi la loolu war a déparé ndax combat bi xam nga li mu jar li mu représenté ci sa carrière. eh Gackou de ah nañu ko moo koy ñun ni koom. billaay wallaay. adoki hande kono le 11 adogota eh, retouro eh, yobbawe eh, maɗe min nanta min nanta min nanta min nanta ko solo waaw yakkude yahay daw daw daw rek mais tey daw nga le 11 doo daw retour bi du yomb si yow retour xale bi la nga jël du yow yaa may téye barki alaaji Fallou Mbacke du yaa may téye ci kaw laa jëm roi des arènes laa jëm l'inspi ba paaxu nee na ma une minute trente secondes te man yàppuma ko waaw ñëwoon nga dëggal sa bopp nag. lekk fii ko paako. non na bàyyi def si kot dañ def kot loolu. fii ko paako bi dañ ci def kot. léegi tamit waa mafia Abba di bëggee boisson. gannaaw bàyyi leen ñii ñu animé waay gannaaw s'il vous plaît yow da ngay jug de. yow borom laafa bii laay waxal léegi nga jug fii nga toog yow. non non borom laafa bi dëgg. wuy ma yow <laughs> foto ñu garaawul oui ma <laughs> bébé Diène sa combat ak gàttu de comme ni nga ko waxee dafa tombé ak sa retour nga war a ñëw marqué si sa empreinte si bis boobu muy bis boo xamante ne bis bu am solo mais sa adversaire aussi bi ñu ko gisee dañoo gis ci moom préparation bu am solo dañoo gis ci moom wàccaay te lamb lay te lamb lay andi ndeysaan xam nga gaynde biy rëbb toog ay ay at lekkul xam na kéwel bu muy njëkk a jàpp daa war a duuf waaw kéwél bu muy njëkk jàpp daa war a duuf gàkku doom mooy sa kéwél lu may def béy ak yi noonu laa koy def incha allah si kàttanu yàlla waaw Frère man dama lay déglu sànq bu ma toogee fii dama ne buur nga war a doon te ku ma jox kaat bii nii bu ma ko joxee sama mbaalaw bi nee na ma yow buur ngay doon buuru làmb ji te buuru làmb ji ñëwaat na gaynde ji dekkewaat na waaw. comme di nga dégg li ma la wax. waaw dégg naa ko bu baax. combat combat gàpp deux bu mujj bu baax frère ba Serigne Fallou waaw ku topp sa wax moom waaw ci kanam loolu. as ki da lay déglu parce que ñi muy àndal ay papam yow la ñuy déglu Abdou Salam ñi muy àndal yow lay déglu. kii. waaw ma bëri dugal ci nit tànk dugal ci xam naa loolu mais moom dama conséquent rek bu bëri ma ne kii normalement champion bu mag la waroon. waaw c'est-à-dire ne dama koy wax ay xale. ñu mu comprendre. ñu dégg wax bi. wax affaire boobu xam nga. mais mm. wax naa ko ci nit ñi ñafe ko ñafe ko ñafe ko ba doon wax. dëgg la. ay ay nit. waaw. ñoo xam ne dama ba ba leen ko waxee. dañ koo ñafe ba ñafe ba doon wax. Modou Lo tolloon na ni moom. non déet Modou Lo daa mën a tollu. te ñafe na ba doon roi. Modou Lo bi muy Modou Lo bi muy ci ah. comme booy bële la toll. waaw. doomu mbaar cin bi. doomu mbaar cin bi sax góob. waaw. mais daf ko nekk moom bi tamit. incha allah yoon boobu laa jël nii. waaw léegi ki ngay bëreel. combat bu mujj daa xeex ba laa ji jeex. foo toll ci xeex. parce que waa ji nee na du yomb si yow de sa kanam gii li muy rafet nii doo doo ñibbi waale moom de. <laughs> mais Modou ah xale buy dem gaynde non amul amul amul lu muy hésité si La FM Gackou de ngir yàlla boo ma jeexoo bu ma yërëm waaw te man su ma la jeexee dama lay lekk <laughs> ci wàllu mobilisation ma mobilisation waa Medina jig nañ xam nga di nuyu sama président fan si collectif waa Ndakaaru am na nu mujjee def lamb ji de waaw ñoom ñu ngi def si ay jéego macha allah fan si collectif xam nga di nuyu tamit Modou Mbaye dafa am ñuy sonn si man tamit quoi di ma dawal guddeeg bëccëg ñuy jógee yëmbal ku si mel ni laay mhm. ku si mel ni tubaab xam ma ku si mel ni Kalilu Kafa Cissé xam ma dañuy ñëw manqué wu ma dara xam ma ak ak Matar Takos xam ma maa koy bëggee bu baax waa ji biti la mbote xam ma waaw maa leen di bëggee bu baax xam ma Modou Mbaye man daal lu may wax alhamdulilah quoi yow combat bi di ñaanal yàlla tamit sama papa Assane Ndiaye waaw yàlla na ko yàlla dafal jàmm ba lépp lu mu soxla si xam na si carrière yàlla dafal ko ko ak njabootam ko waaw nen koy sonn nañ si man waaw billaa wallaay waaw te waa ji dañoo war a remplir contrat bi te waa Medina jub neen waaw te xam nga ni waa Medina bu xam na ndam bu ne dugal leen si loxo lamb ji jàpp dee ah ak waa Medina ngay bëree lu leer laa lay wax. wala ngay xam lépp incha allah dinaa rafetal stade bi dina ambiance dina wone retour te dina ko jaafut taan insha allah rabbi waaw waaw yemuyini xam nga fer jaaw nangumo odo oɗo sa wow eh mam grand dakar la dekk yo ndeysaan dafa am tamit père père Bom. É, é, é, é, é, é, é. Grande cara que não é melhor, mas vai mas não, mas não. Bom.